asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki julli ji bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu bu baax tey ndokkeel ñëpp ci weer wi nga xam ne ci lañ nekk muy sor safar jublu ci bisu bu màgg bii di bisu sëriñ bi nga xam ne moom la ko suñu borom jagleel defal ko ci li ko ci defal di am mbégte itam ci ñëw gii nu ñëw fii fi kër sëriñ bi muy Cheikh Mouhamadou Mountakha di sëriñ Touba di ñaan suñu borom bàyyil nu ko ci suñu kanam lu yàgg gënu yàgg ci ginnaawam te am ngërëmam ndax ngërëmam mooy ngërëmal ngërëmal Sëñ Tuubaa rek tey nag ñu ñëwoon seet ko ci wàllu liggéey bi nga xam ne ni ngeen ko xamee moom la ñu tàmbali woon jëm ci këru barkeelu yi tam tudde woon ko al matxaf al islaamil mi muy kër goo xam ne dañuy dojale mbooleem li nga xam ne ay jeexit la ju bàyyi ko ci sëriñ bi lañ ca mën a am lépp def ko fa ngir di ko barkeeloo ngir day njariñul tey ak ëllëg gis ngeen sax bëgg dem mi nga xamee ni waa daayira Hizbut Tarqiyyah ñu ñu leen ndokkeel ñoom itam ci liggéey bu rëy bi ñu def biñ koy jébbal dafa wax ne sëriñ bi de xaside yi sax euh, xaw naa ëpp waaye xalima yi ak daay rek ku ko doon wutal kër xawee su koo mën a wutal la yàlla ci moom fekk nag nun ci loolu la nekkoon ñun li doon fexe moo doon wutal kër goo xam ne dañ fay boole xalima yi ak daay ak barkeelu yu bàyyi ko ci sëriñ bi loolee nag am dox nañ ci jéego tey sëriñ bi naka jëkk joxe woon na ndigal ne mënees na koo def waaye nag doole na ca ne mën nañ koo def faf sax ci biir jàngukaay bi ndax ginnaaw day barab gëstu boo xam ne ña fay nekk di jàng du ñàkk ñu war bind ci yoonu murit taalif ci yoonu murit jumtukaay googu dana tax lañ ca soxla ñu mën koo am ci anam goo xam ne du jar ñuy dem fa sori day nekk ci seen wet nga xam daal day nekk gëstukaay nekk foo xam ne fii tam lu waaye soxlaa xam ci sëriñ bi boo fa ñëwee boo fa fekkul lépp danga am foo teg sa tànk foo xam ne boo ci bëgg bind boo ca bëggee bind lu mel ni doctorat wala leneen jumtukaay ya ngay war a defee say gëstu dañ la ko yombalal loolu moo tax jege gi jàngukaay bi loolu nag kon mu jege si dongo yi jàppoon nañ ne doona ci baax am na fa ruq boo xam ne xam naa bu fekkoon ne am nañ digal li ñu ñu ñu ñu def ko fa waaw loolu daal moo moo doon tànk yi tey waaw waaw waaw <laughs> waaw waaw lépp lu jóge ci xam-xam. lu jóge ci xam-xam alhamdulilah. waaw. waaw lii nee na mooy mooy mooy maquette bi. waaw nee nañu waaw tur turki lañ ko lañ ko defarloo ji woon. doon ko barkeeloo ci li ñu wax ne jumaa njaareem bi foofu lañ ko defarloo. wallaahi wallaahi Mbacke wallaahi wallaahi donc donc noonu. waaw. kenn ku ne ak waaw. te te te mën a mën a mën mën daa génne xam-xam. waaw loolu. noonu mm-hmm. rek lay demee. alhamdulilah. xale yi bokkut. waaw bokkut. waaw waaye wax yi dafa yaatu. dafa yaatu waaw. waaw moom lay waaw. kenn ku ne. waaw loolu yaatu naa daal mun na xiirloo. waaw. ci la sa sa yitte jëm. waaw loolu boo jëmee. yomb lool. alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin kon alhamdulilah. waaw waaw moom de daa mel ni. bokkee sëriñ ci hmm. lii. waaw waaw waaw. te ñun ñaan amiin Mbacke amiin loolu bi. alhamdulilah rabbil moom de sa ñaan tax na dama ci am ak dama cee wu leer lool boo xam ne. waaw xaw cee xam foo jëm daal loolu xam naa loolu yow moom. ba mu yóol bi daal <laughs> jërëjëf Mbacke ok ci ba tax na incha allah loolu daal mooy li dolli ko ci ndigal li kon na ko bokk yëpp xame noonu yoon wi xame ko noonu réew mi yëpp xame ko noonu incha allah di sant yoonu murit yëpp nag ndax Euh, euh, ñoom ñoo ma ko ànd ndax liggéeyub Sëñ Tuubaa la du liggéeyub kenn liggéeyub Sëñ Tuubaa la liggéeyub Cheikh Mouhamadou Mountakha la kon nag yàlla ñu yàlla yóbbu ci ñu àggale ko ba def nii ñu def tey indi caabi ji am ngërëmul sëriñ bi mu ñaanal kon ñoo ngi sant di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh